Cheikh Bassirou Abdou Khader wax te loolu dafa nekk loo xam ni gën a nañ ci ay njàmbat yu bëri ndax li nga xam ne moom la ñu nga jëlee seen doole ngeen liggéeyal Serigne Touba Serigne bi dellu si na ci commencé ko ci xalif ya ba nga xam ni ba ci sëñ Mountakha mii nga xam ni différence entre liberté ak libertinage ndax dañu ni thème mu thème mu bis bi tey mooy yar ak teggin liggéey yu ngóor gi digal nag ci wàllu assainissement am ndox ci Touba sant daal na ci. li tax ñu mën ci am yaakaar moo di ministre bi dafa identifié besoin parce que maanaam moom ñoo jëlloo kër fi la nekk fan yii yëpp comme ni ma fi nekkee bu ko waxul woon ñun dinañ ko wax mais comme wax na ko te xam na ni lu jaadu la wax dëgg yàlla bu ñu bu ko waxul woon. ñun ñuy ay dëkkandoom mu jox ñu respect dëkkandoom ak ñi ko sëriñ bi diglee ci ñaari murid yi nga xam ñoo war a dëkk ndax si Abbas wax na ko léegi nee na murid yi dañoo war a boole seen xol te sëriñ bi ñaanoon na ko boroomam pour njabootam boole seen xol kon su fekkee ni moom doxal na loolu ci ñun ñu mu dëkkal la ñu mu vivre ko xam ko ba li muy doon doon ci nguur gi moom ci boppam bi mënuñu lu dul déglu leen